damay xool sa bëti cagay bi nga doon bul ma xool. xaw ma lu ma miin caga boobu moom nga ma gisee ba takk ma tey am ci maman ragal ma caga est-ce que yaa ngi may ndax chaque jour ma dégg ko salaam yow mi bon bu ma nee caga ngay jaaykatu dorog bu bon ñun ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ lépp. jaay jaay dorog boobu ci laa la yoree yow est-ce que sax sama dorog boobu nekkul da ko doon sàcc ba am ci sa sama.